du xeex du dóor. barke sër barke Sëriñ Fall bu xeexee man duma daan bu xeexee man ma gaañ ko. man maa koy gaañ. billaahi walay talay bu xeexee ma gaañ ko. yaa ko moromam. dégg nga xoolal mel mel coow la. yow ndaw egg si na yow ndaw. yow lu may daw. barke Sëriñ Tuubaa Mbakke. waaw naa la duma naal daan. xam naa la jërëjëf yow naa la duma naal daan. jërëjëf dégg li ma la jëfal. waaw bi. yow li nga daw. yow li nga may léegi ñëw ñëw ñëw waaw dama lay duuma dama lay daw dama lay duuma dama lay daw dégg lu ma dama lay duuma dama lay daw man 300 lay daw mënum góor naa ko daw don't touch me waaye yow don't eh, touch me waaye di ma nga am don't touch me waaw man doo ma tontu mi don't touch me dala don't touch me waaye di ma nga am don't touch me na nga ko tojum kaay ngay don't touch me wala ko tojum kaay na tojum ma dama sa bu ma la jàppee xam nga ku daas ma gàndagal daaw Sane Ba la dama lay duma laa wax dama laa may chance yow dama laa may chance. ana plan moom boole ak yow yow yow lay entraîné lii entraînement daa entraînement daa entraînement yow. kii tapet la. amul fi koy nokku daan ko. dama koy duma moom rek la ma daan ko. maa la ko wax fii dama koy duma daan ko moom tëdd. dana nga bëri wax duma la jàpp daan yow waxal ma yow ñaata combat am koñ ma six combat la am cinq victoire benn défaite moom moom cinq combat deux défaite. trois victoire dégg la daan. cinq combats la am quatre victoires benn défaite góor gu ma gaaw la bi la tànn dee ko waaw góor gu ma gaaw la góor gu ma gaaw ñu bokk koñ may bëre ak moom. waaye deux défaites nga am deux défaites nga am. barke alxuraan karim ñaar défaites la am. góor gu ma gaaw la ñoo bokk engrais ma sa morom barke alxuraan naa la jàngal bëre. yow xanaa da ngaa ndoxum siti da ngaa ndoxum siti dinaa la noq. da nga bëri waaw dama lay noq. maa la ëpp doole maa la mun barke Serigne Sall. di woo sama mag Ama Baldé di ko woo ci combat bi di woo ñëpp na ñëw na ñëw war war a ñëw war a tànn journée bi quoi journée bi journée bu neex la war ko mën a yàqu waaw sa adversaire ñëwul lu tax ñëw ah xaw ma damay ñaan yàlla jour combat la bu ñëw waaw jour combat koy bëreel wax dëgg euh, c'est la première fois amateur lamb laa nag wax naa leen ko léegi bi ñuy waxtaan parce que presque pendant vingt cinq ans wala trente ans chaque dimanche maa ngi làmb ja di seetaan dama daan sax léeg-léeg nelaw ci tribune yi entre deux combats pour won leen ni ma bëggee làmb Eh, Assane nag may ma occasion bi mais li tax ma nangu ko aussi dama am yaakaar wóolute ci sama mbër muy Boy Baldé ma yàgg ko jàppale voilà yàgg ko encadré loolu moo tax ma nangu ko mais yàlla xam ne depuis plus d'un an dama doon bugg sax tëggal ko combat fii ci Sébikotane essayé woon naa ko ak ñaari promoteur aboutirul far Assane ñëw def lii lii gën a rëy te donc yaakaar naa incha allah commencement la ne làmb jooju bu ma bébétoon pour def ko ci sebu Sébikotane ci kàttanu yàlla dinaa ko def. ok mhm. mhm. mhm. li ma koy waajalee daal mooy ni Assane bëgg ma waajale ko ko. ndax wax dëgg wax naa leen ko léegi c'est la première fois ñu tudde ma drapeau kenn mënul xam lépp fu ma teg fu ma xooloo foofu laay xool lu ma def loolu laay def ci kantunu yàlla invité nag waa Sébikotane yëpp ci kantunu yàlla jour boobu moom di ngeen gis waa ba doyal ci kantunu yàlla waa di ña ndax sama nijaay fa la nekkoon kër maam Cheikh waaw sama nijaay dama fa daan dem kër maam Cheikh Ibra foofu la nekkoon sama côté yaay donc Bawol saf naa fa trop mais yaa ngi wax ci làmb ji euh, sécurier presque man aw ma mbër gis nga bu ma ñëwee ba stade bi bañ commencé bañ summee ko ba commencé looto la sama xool doolo far fenn wala sama esprit far fenn ma xool leen xool seen forme ma ne kii moo war a daan presque non ki mu war a daan ki ñu war a daan lay ànd <laughs> donc honnêtement am na nag ñu ma neex ama seen sama waay la toog na fii ama seen ñëw na toog fii ba tey sama sama waay la eh, loolu moto sax ma di ko naat nettali mbëru Kaolack bi na la tudd Tyson Tyson premier combat man mii maa ko sponsorisé fàtte na ko boobu mi ngi nekk port premier combat man naa ko jàppale boobu mu ngi nekk port ma nekk chef service PTB petit train de banlieue xaw ma 92 la xaw ma ci période yooyu la mais yooyu yëpp c'est donc yàgg ñoom ñëpp laa xam voilà dama yàgg ci làmb ñoom ñëpp laa xam waaw kii nu mu tuddati kii sama xarit la kii dëkk Joal nan la tuddati Yékini non non pas Yékini ki dëkk Joal Fadiouth Manga ndax euh, ami intime boo xam ne ñoo defantu lépp moom mooy nekkoon sama adjoint donc mbappat bu ma seen tëgg même Joal dama daan dem ànd ak moom sama xarit donc dama yàgg ci làmb voilà mais nag comme ma su ma bëgg a feeñ fenn wala dool loolu mais yii da ngeen koy dagg quand même yii dañuy wax. li ma mën daal yaakaar naa dinaa fexe ba ci fan yi gës néew am na ay société yu nekk fii si Bougoutaan ma fexe bañ jàpp ci man personnellement dinaa ci jàpp euh, agence bi ma yor du ci mën a gën jàpp yoon mais après <laughs> <laughs> mais man dinaa ci jàpp incha allah waaw waaw waaw waaw waaw kooku moom dara du yomb ci kàttanu yàlla ah dara du yomb waaw ñu moom daaw def nañ benn euh, nuit du théâtre fële nu mu tuddati au grand théâtre mm-hmm. pour waa Sébikotane kii la lumière am na ay tableau yu nekk fi ñoo ko def waa Sébikotane yëpp a ñëw incha allah jour boobu moom xaw ma ndax waa Sébikotane yëpp dina ñëw mais ñi ëpp dina ñëw jeunes yi ëpp dina ñëw ci kàttanu yàlla. xarit waaw waaw sama mbokk cheminots yi aussi dinaa leen invité ñu ñëw. di ngeen fa dégg saxaar ga mu soufflé incha allah waaw ba saxaar ga jooyee moom di ngeen ko fa dégg voilà ah sama mbokk politiciens yi nag xam naa ne période bi moom kii na waaw période moom moom dañoo xaw a sonn xëy na sax le treize dina fekk ñu firee ko tuuti parce que <laughs> ñëppay firee <laughs> bon xam naa ne dina en tout cas dina am ñu ko wax pour ñu ànd ak man eh, voilà bu leen fi fekkee dinañ ñëw ci kàntanu yàlla moom laa ñaan mu yàlla mais di kontaan ci Assane di ko gërëm di ko sant wax dëgg eh, wax naa la ko léegi du moom laa njëkk a xamanteel ci promoteur mais moom moo ci njëkkam xel ak eh, yéene defal di ko gërëm di ko sant di ko xamal ne ko ñi ngi dogg xamante mais du ko rëcc ci kàttanu yàlla ndax lu ma man lu ma am te dañ ko bokk à partir de maintenant waaw loolu moom ma dal ci xelam bu baax a baax a baax a baax waaw loolu daal am Assane maa ngi lay gërëm di la sant léegi nag malheureusement dàq ñu ñëpp waaw ah eh, wax wax wax dëgg sa la Eh, dàq nga ñëpp dàq nga ñëpp <laughs> dàq nga ñëpp léegi moom léegi moom ça veut tout rek dàq nga ñëpp Njaay jaata et puis et puis santam dafa neex soxna si nekku fi dafa tukki mais Njaay la sant <laughs> du dëgg ma kele ah, mooy magam ci bu tedd bi di gërëm suñu ñaari waajur ñu ngi sant Serigne Touba bu wér di nuyu waa Sébikotane yëpp di leen jaare rawatina suñu papa Ablaye Lo suñu papa la suñu xarit la suñu kilifa la dañu jëm nag ci làmb ju rëy ñu tudde ko ko diggante Boy balde ak Yeksil ñu tudde ko làmb ji euh, suñ xel dal ci moom loolu nag ndax bi ñu fi ñëwee ci ay mbokkam gis nañ ñëpp ànd ak moom ñëw nañ fi benn meeting macha allah dañu bëgg torop keroog liñ gisee ñëpp ànd ak moom li ñu wax ci moom nangu naa liggéey bëgg na dëkkam gëm na boppam te loolu rek moo ma booleek moom ñu ngi ñaan yàlla daal lii ñu ko tuddee yàlla nañ ko commencé ci jàmm mu jeex ci jàmm jërëjëf kontaan naa ci moom trop waa xam nga man sama drapeau moom duma ko jox ku nekk jàmbaar laa koy jox ku ku nangoo liggéey ku bëgg réew toog naa ci télé nii président di ko gërëm ko président di gërëm nag di ko jaajëfal kooku mu ngi liggéey réewam ñu ba Sénégal yëpp ñu bàyyi ko xel ñaanal ko mu am gudd fan ak wér li mu yéene ci réew mi yàlla mottali ko am naa mbégte ci moom lool yàlla na yàlla mottali jërëjëf.